inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokki jullit yi mbokki umma islaamiya bi àdduna bi wërngal kàpp jooju ngeen jàkkaarlool fotoom di borom xam-xam di mujahidul akbar nekk al alimul allaama nekk al cheikhul murabbi di suñu baay di suñu sëriñ di suñu soppe di suñu xarit baay mursid ahmad iyan caam mu ñëpp xamoon ci taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci réew mi ci benn lëkkëri diine yi ci weer wi moo xuy ji boromam sànq nii ci suba incha allah ñu ngi ko yëgal umma islaamiya bi yëpp ci kàddu yuñ jotit danañ ko taxawee ci taxawaay bu njëkk ci jumaa yi jëppal incha allah ci waxtu trois heures ñu fa yéene nag yóbbu ko fuuta ca ba ca dëkk boobu nga xam ne xolam ak xilaatam lépp ma nga fa woon loolu mooy information yi nga xam ne moom lañ jotagum li ci soppeeku rek ci waxtu wa ak yóbbu ga incha allah danañ ci dellusiwaat waaye ala kulli xaalin daal al mursid cheikh ahmed Iyane Thiam mi ñëpp xam jeexoon tàkk ci mawlaana al xalifatul xaaji Muhammad ca eeram bu neex ba ci lépp mu jëloon ko jooyal ko jox ko maam xalifa Niass waaye jox ko lislaam bi jox ko mboolem këri diine yi moo wuy ji boromam defal ko fatiha ak fukki xuluwa ak benn ak juróom ak ñetti salaatul fatiha diyal ko ko kon ci waxtu wi tembe ñu nekk ci bésab ajjuma tolloog ñaar fukki fana juróom-ñeent ci mois de janvier deux mille kon xibaar baa ngi noonu